قريبه قريبه قريبه على سوق سوق سوق 11 11 11 11 على سوق على على

joolaa mooy a ah, sama yaay booy yaay booy ah, waaw waaw lan lañ teg ndax lañ ca teg mooy ndax maa dem ndax tey bisu dund la wala bisu dee bu ma dundee muy noonu su ma deewee muy noonu waaye yaay booy sànni ma ñaan loolu mooy li nga xamante ne moom la xale yi di way fii ci Ziguinchor mais en joolaa lañ koy wayee ñoom ñoo koy jéem a traduire en wolof mais liñ ñu wax ne moom lay firi mooy yaay booy sànni ma ñaan ndax maa ngay dem ndax tey bisub xeex la bisub dee la wala bisub dund yàlla moo xam waaye yaay boy sànni ma ñaan lolu la xale yi di way tay gis nga ñëw nañ ba délivrer président Ousmane Sonko ci bir kërëm ñom xale yi ñay continuer ñay ngay continuer seenub yoon way seen way wone seen contentement waaye seen tofel ci bi nga xamantene gis nañ ko muy seen président le président Ousmane Sonko

ñu nga jël seen yoonu bopp di way di wayal président Ousmane Sonko te buntu këram kon di leen dox di daje incha allah.